boo xoolee euh, promotion bii di Prosmed muy promotion sortante bu médecine bu deux mille vingt deux mille vingt deux te lu ëpp ñaar téeméeri docteur nekk ci. Euh, mu bëri jigéen lool ñu koy sante yàlla nekk na promotion boo xam ne li leen di màndargaal du tey li ñu leen di jëmmal ne lañ doon jàng wàcc nañ ci ba xarañ ci mais surtout action yi nga xam ne ñi ngi koy def te doona bu ñu docteur ndax boo seetloo da nga leen di gis fu ne ci réew mi wala ci bitim réew ñuy indi ay ndimbal jëmale ko ci askan wi loolu nag xolu yërmande dafa mel ni dafa teel a tàbbi ci ñoom te liggéey bi ñuy def muy wàllum paj xelu yërmande xolu yërmande daf ci am solo lool kon ñoom bu fekkee ne loolu lañ leen màndargale day dal suñu xel ndax suñu ay doom la ñu jàkkaar lool suñu ay rakk ak suñu ay borom kër loolu tax na ba bi ma toogee di leen xool ma ne monte de bu ñu nekkee ci mbedd bi gis étudiants yi di toj ak day mel ni kon ñii ñoo nekk ci tali bi kon day nekk rek ne ñun ñëpp benn lañ et que tey euh, ñun état li ñu war a taxawee dootul sax xëy na wut rapport de force ak ñoom mais dafa war a nekk taxawaay boo xam ne dañuy toog waxtaan ak ñoom indi seen xel ci ban rôle ak ban place fan maanaam fan mooy seen place ëllëg ci réew mi ndax ren moom li lii nekk nii këtt ne jonn xëy na ñu ngi ci mais day gën a yaatu ëllëg ndax ëllëg ñoom la du ñun comme ëllëg ñoom la nag te dañu bokk réew mi te lii ñu def tey wane na ne vraiment ñu ñëpp benn lañ ndax ay yaay lañu war nañu gën a jàpp en tout cas suñu xel dal na ci ñoom euh, euh, seen euh, turandoo muy le professeur El Hadj na ku am solo la suñu xel dal na ci moom xam nañ taxawaayam ci réew mi mais muy aussi seen i marin ak seen i parrain seen i ambassadrice docteur Rose Wardini ñëpp xam nañ taxawaayam soxna Ami Mbacke aussi ñëpp xam nañ taxawaayam kon loolu loolu lépp daal tax na suñu xel dal ci ñoom te jàpp naa ne muy ñoom muy yeneen secteur yëpp dañu war a gën a jàpp ndax ëllëg ñoom la. Mhm. yaakaar naa ne njeexital bi mooy ñu fexe ba nga xamante ne nii Sénégal am paj mu ñoŋ. Euh, ci biir réew mi wërngal këpp yenn saa ñu nemmeeku ci ay zone yoo xamante ne si nii euh, daf tey dafay manqué lool yenn ci euh, pajkat yi est-ce que tey jotul ñu gën leen a ñaax bu ñu génnee. ñuy nangu di dem ci yenn ci zone yi nga xamante ne day xaw a waaw loolu danga koy méngaleeg ñeneen ñi nga xam ne lim bi nga xam ne moo ëpp lool te ñu nekk ci yeneen gox-goxaat yi boo demee Kédougou nga dem Tamba nga dem Kaffrine danga nga fay fekk aussi ay docteurs yoo xam ne ñu ngi fa di liggéey mais li ma wax sànq rek li gën a dal suñu xel ci promotion bi nga xam ne président El Hadj Ibrahima Silla mooy seen jiit mooy dañu ràññee seeni jëf lu jiitu nekk sax ay docteurs ñi ngi jàng. mais donte ñi ngi jàng wane nañ xelu yërmande boo xam ne fu ne ci gox-goxaat yi dañ leen di gis ñuy dem di fa def ay action humanitaire kon loolu day dalal suñu xel li ñuy wax rek mooy euh, dañu war a fexe ba état bi fépp foo xam ne zone la mu nekk euh, moo xam capital la wala du capital plateau médical bi am solo te loolu gis nañ ko ci jëfu président Macky Sall ndax mi ngi tabax yu ni mel lu mel ni seeju mi ngi koy tabax yu mel ni Kaffrine kon euh, lii des rek mooy ñu gën a moderniser gën a rendre accessible plateau médicaux yi ba nga xam ne liggéeyee dakaar wala liggéeyee Mbadakhoune daa di day daa di yem. ci yi waaw ci exportation yi ASEPEX am na liggéey bu am solo bu mu ci war a def ndax moom mooy agence sénégalaise de promotion des exportations lépp lu jëm ci loo xam ne sunu alal la ñu war ko jëlee fii dem jaay ko bitim réew daf ci am solo ndax day participer aussi ci li ñuy wax l'équilibre de la balance commerciale moo tax dafa war a nekk secteur boo xam ne dañ ko war a euh, renforcer mu am des actions de qualité mais surtout mu répondre au norme de l'environnement des exportations yooyu yëpp nag ñi ngi ci ñi ngi ciy liggéey euh, yoon bi nga xam ne ci la ñu war a jaar tënk nañ ko ci SN exportation 2035 muy stratégie bi nga xam ne moo ëmb exportation yi euh, am nañu événement yu mag yoo xam ne aussi ngi koy dëgmal lu mel ni Dubaï bi ñu génn doxa exposition horticole doxa bi ñu ngi koy waajal ci atum ren ñi ngi waajal également expo universelle bu Osaka en 2025 yooyu yëpp dina am taxawaay yoo xam ne fii ba ñuy yegg foofu ASEPEX bëgg na ci def tax liggéey ci wàllu encadrement ci wàllu offre exportable ci wàllu production de qualité yoo xam ne dinañ mën a euh, tenir la concurrence des autres pays waaw promotion sortante de médecine mu nekk promotion boo xamante ni xam nañ leen ci ay mbir yi nga xamante ni ay mbir yu mbir yu mbir yu yu yu yu social nga xamante ni dañ ko def nga xamante suñ suñu suñu professeurs yi euh, ay valeurs yi nga xamante ni inculper nañu ko muy suñu professeur El Hadj Niane yi nga xamante ni mooy suñu homonyme euh, jox nañu ko ci ay xeetu dimbale wante moo tax ren ci ren sax amoon nañ jotoon nañ def ay activité activités yoo xamante ni Euh, kawe na romb na biir Dakar parce que def nañ fi ay campagne médicale yi nga xamante dem nañ ba ay Kédougou dem nañ fi Tamba dem nañ fi Podor dem nañ fi Dagana dem nañ fi Alieu dem nañ fi sax ba ba Mauritanie muy Bogué mu nekk li nga xamante ni ay ay ay ay ay médecins yi nga xamante ni ñooy doogu génn ñu ndaw ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy def di ci ànd ci nag ak appui madame le ministre Zahra Iyane Dia mu nekk suñu ambassadrice ak euh, docteur Rose Wardini ak euh, madame Soxna Ami Mbacké mi nga xamante ni yàgg nañoo jàppale ci ci ci ci ci ci ci wàll woowu. Hmm. promotion bi nag nekk na promotion boo xamante ni pare nañ incha allah ci ay euh, at yi di ñëw yi nga xamante ni fépp foo xamante ni devoir bi woo nañ fa ñu dem fa parce que médecine bi limité wul li yemul tamit ci Dakar ko sa yeneen dëkk yi ci la bokk incha allah.